Matar ko ministre monsieur le ministre jii nag moom faaw nga teewee su bi mu ne ko incha allahu taala maa ngi koy yéene. yaakaar na ne booba ak léegi ñoom ñaar déggante wuñ téléphone. waaye bëggul woon wax Matar ne ko dinaa ñëw ba pare ngant tee ko wala mu ne ko du ma ñëw ba pare ñëw. waaye ene moom moo doon teew ci bésab tay bii alhamdulilah teew na. mu ne yàlla mi ko tiim xam na ne ba démb. yaakaaroon ne moom day mënut a teewe bés bii. ndax kenn ku ne yëg na yëngut yi nga xam ne ma xew Ndakaaru. mu ne daanaka bi mu xëyee ci suba rek. la ne moom daal su añee daal di départ ñëw ci dëkk bi. mu ne alhamdulilah yàlla def na tombé naag timis gi ci dëkk bi. nee na moom day bi muy avisé mataar ne ko maa ngi ñëw fekk na mu génn sagata. fekk na booba ma ngay woo député maire Yoro Sow fekk jotu ko ndax booba ñu ngi woon ci jotaay bii. nee na daal ay ñëw fekkee jataay bii ak ziyaara moo taxoon première ñëw bi looloo koy sabab. mune ne sabab ba nak mune ne lu ëpp juróom at ngi ni ñom bu ni waji dan dem campagne électorale rek fi dal lem, ñew neena bu ñewaan fi nga ñaanal leen neena boba ak tay ñaan goleen ma sa ñaanal rek ci bi am nañ ci ndam nee na ba mbir mi tàmbalee mu am ñaari ngant ci mbir mi mu ne ba njëkk ca ngant mooy situation ministère de l'intérieur tax na day mënta dem bokk ci campagne électorale ba ñaareel ba mooy bii campagne bi tàmbali ndakaaru la ko fekk waaye di ko bàyyi joor wooye li ñuy def. ne ko sëriñ bi nuy def. mu ne ko nan daan def rek la ñuy def. bala ngeen di tàmbali. dem leen ci Baye Dame. mu ñaanal leen ngeen tàmbali. nee na yaakaar na ne lam leen digaloon def nañ ko. kon ñaar yooyu benn bu ci nekk rek moo waral moom monsieur le ministre ñëw fii. mu ah, ne bi ñu tàmbalee bi ba nëgë nii. mu ne tàmbalee campagne bi ba nëgë nii. moom day mi ngi door dugg si jolof. mu ngi door a toog it jolof. xanaa toogoon lu dul dafa doon jàppoo bala mu ñëw fii. kon daal ngiñ la njëkk a toog ba campagne bi tàmbalee ba tey ci jolof. kon lan yéene woon démb mooy seen yéene tey te am nañ ci yow yaakaar sëriñ bi am ci ëtt bay gaaj bi yaakaar ñu ne ñu lay ñaanal yàlla. yàlla yàggal la fi lool te nga wér mu ne ndax yow day njariñu dëkk bii nga waaye njariñu Jolof yëpp nga dëkk nee na loolu moom amul sikk na kenn warantuwu ko ndax yow daal ku mënoon diis nga waaye ku oyof toll nga nee na li tax mu wax ko mooy événement yun xew la ca Linguère yow kenn du la ca jiitu mu ne heure bu la gisee rek na la bàyyi daam yow mënoon nga yónnee waaye comme yow ñoom ñii bëggoo umpale seen dara monsieur le ministre ak ñi mu ànd nee na ñoom it bëggu ñoo umpale sa dara gaaj kon nag yaakaar bi nga xam ne ñoom amoon nañ ko yow dim nee na tey jii la raw nag ndax ñaari événement yi mu daje ñoom day ñu gëm te jàpp ne soo ci ñaanee daan jaar alhamdulilah dana ci jaar mu ne waaye nga ñaanal yàlla réew mii jàmm rek nekk bi ndax daal yàlla ñuy suturaal élection 2012 laata ñuy egsi fii nii fukki bakkan ak ñett wa doon nañ ca te ñëpp di doomi sénégalais nee na booba kat avant ñuy tàmbali campagne bi la. mu ne tey tàmbali nañ campagne ba ba def na semaine. mu ne amul benn rëj-rëjloo électoral boo xam ne nit gaañu na ca wala ñu jël ca bakkanam. mu ne mu wax la ne ñi ngi sàkku ci yow ñaan nga ñaanal yàlla la ca desit continuer noonu. mu ne ba dimanche 24 ñu wote waaye la topp ci gannaaw wote ba continue ci jàmm ji nee na am nañ ci yow yaakaar am nañ ci yaakaar ci yow am nañ yaakaar ci njaboot yëpp nee na dolliwaat di feddali kóllëreem ak waa ngi yëpp nag waa ngi nekk fii ak waa ngi ji nekk Ndakaar ak bitim réew ak waa ngi ji nekk diaspora bi yëpp. muy ñi nga xam ne moom heure bu demaan ci ñoom rek dana gisante ak ñoom muy ñoo xam ne day ministre bi kontaan na ci seen taxawaay ca foofu ñu ne ci Europe nee na mi ngi dolli di leen encouragé mu ne ndaw yi nga xam ne ñi nga àndoog moom daanaka daal mboolem dëkk bi ànd na nag moom waaye rang daal fu ñu toppalante am na ku gën a sës ci rang nee na ñi gën a sës nag mu ne na leen lool ci sen lépp luy jëm ci fi rek la ñom ñi ni wax toujours muy Matar ak collaborateur am yi pas Pa ak monsieur le maire babu Koundoul ak touti mu ne kenn ku ci Cheikh lépp lu ñu yëkkati rek ci dëkk bii moom mii monsieur le ministre bok na ci ñi ko njëkk yëg nag sëriñ bi bu la mel noonu amee sa njaboot ndax moom it ci njaboot gi la bokk ñu taxaw taxawaay bu rafet boobu nee na loola daal moom mi ngi koy rafetlu te ñëpp a ngi koy rafetlu kon nag loolu daal mooy kaddu ministre bi jëm ci yow. نانا ميغي تاجي وقتانا تدي لا نانال يالا دا ياغ في لول تبر باغا خامن لو ملني اور بو فامي نيوم في دي لا زياره موني ميغ دي زياره نجبول بي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته